waaye yonent bi da ko bëgg muhammadun yuhibbuna wa qaama bi ma yasuruna wala nulaama sëñ bi moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf ma bëgg waaye nag yemul ci bëgg ma waaye lépp loo xam ne daf may bégloo ci la yonent bi taxaw kon bëgg gi ko bëgg moom sallallahu alayhi wa doy na waaye bëgg gi ko bi bëgg it daa juralaat yonent bi sallallahu alayhi bëggal ko boppam muy koo xam ne it yi nii daje ci yonent bi yëpp yàlla jox na ko ci cër yu rëy defe naa gëstukati téere yëpp kenn du fekk ci benn téere ku bind ci sa téere asnal xadim wala xayrul xadim baatu xadim sax boo gisee ko bind da koy jëmee ci sëñ bi waaye du ko ñuul du ko weex ku bindal boppam titre def xadimi rasul xadimi rasul moom ci sëñ Tuubaa nga koy fekk loolu nag dafa am am tur yoo xam ne dañ koy tuddee tafaulan mooy nit da koy def ngir gàtt nga rek maay xaadimu rasul ak maay sopp na bi waaye bokkul ak tur woo xam ne ismul xaqiqi lay nekk nga xam ne boo demee ci xaalamu sufla ak xaalamul oliya dañu la koy wooyee yàlla seereel la ko te sëñ Tuubaa na man yàlla ma seereel na may xaadimu rasul shahida lil baaqi bi anniya al xadim wa xidmati lil muntaqa bishrun yadum kon yàllaa ko seereel ne moom mooy xaadim rasul loolu nag eh, tey bu fekkoon ne moom la ñuy wax jëmmi xaadim rasul ngir nga nekk egg ca ay tabaxaat la ñu ñuy jéggi du manto bu ñuy wekkoo rek wala toog ba mu neex la nga ne may xaadim rasul dafa may darajaat yoo xam ne nit da koy jéggi bañ man la koo nomee nga sañ a wax ne man mi may xaadim rasul liggéeyal yonent bi rek moo nekk yitteem mboolem bindkat yi ci àdduna bi yëpp bu ñu dajalee liñ bind lépp jotul li sëñ Tuubaa bind waxuma ñu naan kenn nit ñi ñi bind laa wax ci adduna bi dañuy dajale mbind yëpp teg ko ci balance dem jëli lim bind ca ñama sa bind ba fi bind tollu tey ak ni ni bind gën a yombe léegi ak ni xam-xam gën a développé gën a gaaw kenn bindagul ku dul sëñ Tuubaa loo bind mënees naa xam lépp te tey benn murit wala benn kilifa bu xam li sëñ Tuubaa bind amut ku am li sëñ Tuubaa bindit amut waaye mbindam defal nañu ci taw féex yi kenn mënu ko ruur maanaam ku wax ne ku ko waxal lu mu waxut buy daanu rek ñu xam ne waxu ku jël yëfam taf ci sa yooyu it sa réew it xam ne lii day am ndax ndax fan yee dégg naa ci ko wax ne xadil bi xayatul rijil mujtaba wax ko ci kanam kilifaam wax ne sëñ yonent moom moom kilifaam moo wax ne sama sama ndëgg sama lex bi laltaay naa ko ci ndëggul dal rasulullah loolu mbindum sëñ Tuubaa la mi ngi ci xasida gu tudd Fathul Fattah fii Mathil Miftah genn gi nekk ci Futuhul Mukarram fii Mathil Mukarrami maanaam mënee su koo xaj na jafe naa xam nag waaye am na ci ñooñu lay seen yitte lépp mooy te te tagginam luzum maa la bi ci nekk ak ni sëñ Tuubaa di waxe waxee nga wala udaani ko shu'ara nga xam ne wa shu'ara yatba'una al-ghaawuna yi sañ bi mucce ci yooyu yi mooy defetiw tagg ak nga xam ne moom du tagg ngir am koom wala dara déedéet ba muy tagg ba balim tadaxtuka yaa mawlaaya mubtaxiyan min ka rida baxdama tamhul xatiati nga xam ne nee na jëmmi ngërëmul yàlla képp ak wattu ko bakkaar moo a tax di jël sama xalima di ko tagg tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne dafa jël dundam gépp moom waxtu ne mi ngi gàmm ndax gàmm mooy tagg yonent bi ak julli ci moom ak nettali jalooreem sëñ Tuubaa waxtu wu ne day gàmm ne laylatul xadr nekk benn naar da koy tagg ba yàgg mu ne ko yaqumu layaali laylatan bada laylatin fa kullu layaali indahu laylatul qadr léegi yow sëñ Tuubaa egg na ci dimension boo xam ne du nekk ba koor ñëw laylatul qadr door waaye la guddi yëpp laylatul qadr la ci moom ndax nañuy taxawee laylatul qadr la koy taxawe te tiyaaba ji am ci laylatul qadr moo koy dikkal noonu la mel it bésam yëpp gàmmo la ndax at mi juróom benn weer la mu jël juróom fukki weer la ak ñaar mu jël juróom benn weer yi di ci tagg yonent bi alayhi salaatu salaam jël juróom benn weer yi di ci julli siiw na ci salaatu sitta waaye wax na ko ci feneen foo xam ne daa tudd bis ya wax ne madaxtu xayral xalq min al muharrami ila intisaafi al aami daa takarrumi loolu mooy muharram bi wax lahu salaati wa salaami min rajab li xadmi sil xijjati naamal muntajab kon juróom benn weer yi day tagg te tagg yi da ko def ñetti xaaj nee na benn bi day nan mustamar la maanaam bor boo xam ne dama ko waralul ni nit di def at mu jot mu ne maa ngi jaayante ak sëñ bi yóbbu addiye sëñ Tuubaa nee na at mu jot damaa waralool borub tagg boo xam ne dama ko jox yonent bi muy bor benn bi di addiyee benn bi nag du bor du addiyee coobarewu la nga xam ne ala man alayya wala su sadix lahu kulla aamin adaya madix kon war lool na at mu jot mu jox addiye eh, waaye xadin sa samtu lahu fi kulli ma sanatin maa daama aqimaay daynil hadiyati am bor mu ngi koy jox waaye li lil mustafa al karimi fi kulli sana alayya am daaxun tura mu sax sana kon day tagg ci def addiye di ko def bor di def loo xam ne du addiyee du bor coobareewu la da koo soob mu mu di ko def loola it moo tax bu dee bëgg yonent bi salaahu salaam it defe naa bëgg doom bëgg alal bëgg soxna bëgg lépp sëñ Tuubaa dafa far ci xolom sëñ Tuubaa amul lenn luy yëngu ci biir xol bi ku dul yonent bi salaahu salaam mahat mahabati al muxtaar sayidina xobbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu ma abdan xadiman lahu muskaana li sanada nga xam ne amul lu muy yëg ci biir xolam lu dul yonente bi alayhi salaatu salaam sëñ mooy ko xam ne xàmmeewuloon kaani ak suukar bu daan suukar ma maanaam kenn du ne la sëñ Tuubaa ba muy sukkar warga da koy suukar wala café góox ko ci làmmiñam ngir xam ne saf na déedéet bu masaa di sukkar day suukar jël xalima gi di ko yëngale li muy suukar ba muy liddeeku di jàpp ni kol mu doog a yëg ne li muy sukkar ndox ak suuf ak sukkar baaxoo wunoo jàppoo mu xam ne kon sukkar si kole na te du tax mu mus ko ba xam ko ndax sëñ Massamba Mbakke nee na mas na mas na cee xel lépp kaas jox ma ne ma naan ko ne ko Mbakke saf na de bi ma ne ko saf na mu ne ma man de man de yàllaa ko yonentam daf maa saf ba suukar safatuma xam ne yonent bi la yëg ba yëgatu suukar nee na jataay boobee sëñ Massamba nee na dañ fa nekk di waxtaan di tudd yeneen yeneen béréb ak yeneen mu ne dënd ba yàgg mu sama mu ne ñi ngeen di tudd sama kanam boo leen tuddoon sama tur ci seen kanam danañ rus danañ am gàcc daan keroog la leen laaj ne leen waaw ndax yéen sax xam ngeen mat xam ngeen sëriñ bu mat sëriñ ni muy mel sëñ ma sàmm ne ko bu ñu ko xamee jël mu ne ko sëriñ bu mat sëriñ di day toog ci jataay bi di berndeel ñoñam di xettali ñoom ca barzaq te du wute jataay bi sëñ Mbàkke sëñ ma sàmm ne ko loolu de moom jafe na mu ne ah, soob na yàlla ne seen seen bos mën na ko waaw ah, soob na yàlla ne seen bos man na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it jox ko mbóor yoo wax maddali yal muxtaaru sirran lan yura xattu li xayri wa li xayri lan yura gis nga sëñ Touba du ku ni jeex ndimbalul yàlla la ci nit di am li sëñ Muntaxa yi wax ko am tawfiix ku ñàkk tawfiix ku texee di mu ne ku am tawfiix mooy nun ñaan ak moom ku ñàkk tawfiix mooy ku ko dool mutul moroom ki texee di mooy ki ko bañ loolu la sëñ Muntaxa waaye ki am tawfiix mooy ndax sëñ Touba mënoo natt ci àndaar yi foo koy xamee ndax loo jàpp ne bu dee ci xam-xam la nga ne sëñ Touba dama koy natt ci dimension xam-xam wala nangam a nangam waxuma la moom xam-xamam waaye day jël xam-xam sol ko ci koo xam ne diggante bu gàtt gàtt lay doon kooko woye xam-xam boobee fees dell bu dee ci digganteem mag yàlla la fa nit ñi tëlee ci wéetal yàlla fa lay tàmbalee wuti kaw kon sëriñ bi ci boppam mooy koo xam ne bu dee digganteem ak yonente bi sa alayhi wasallam la sëñ Moulay Bousso doon wax rek ne idas tabaxal ubadu kaana amaamahum wa fi matti xayril xalqi xaydul awaabidi laqad faaxa kullan fi salaati ala nabi wa fiha bada taqdimuhu bil mashahidi nee na nee na nee na bu jaami yàlla yi dawee yàlla di ko jaamu ji fekk sëñ Tuubaa ca kanam juróom ñaar fukki at ak juróom la dund mës sa tiim mës sa faat waxtu mës sa juyoo ak boromam mës sa tooñ bindeef ku ko tooñ baal na la te xat-xat yi mu nekk ku ne la dund na ko ba noppi te mës sa tiim amul waaw dem bu mbokk moom moomu ma demoon mooy nettali ci suba gi laa la ma door a def jël ba ma ma daanu ci di jooy jooy métti ci suba gi yàlla xam na ko fekk dañu dañuy waxtaan mu wax ne dafa demoon di topp ci archive archive yi mais jour jugement sëñ Touba bi bi ñu atte sëñ bi ba mu fa moom daa fekkee woon jugement bi te kilifa la ci kilifa yu góornóor yi dafa ñëw dindi tubooyam jël ab sér jox laaj soxnaam ab sér na ko jox ma ko ma takk andi ma woddu daan na ko góor moom dama ko daan dégg waaye maa ngi koy door a gis ahmadu mee ca biirob ndar kooku képpay góor daan ndax ba ma fa dalee nekk ba léegi mosuma dégg ku góor noonu a defal mu ne du ma def ci moom dong laa ko ma si dégg na kon góor moom dong ko doon te noonu loolu engagement boobu sëñ Tuubaa di jël lépp rasulullaay tax innil xadiimu ay su uqiimu fu ma mën a nekk yow laay liggéeyal liggéey ba mu doon liggéey fu ma sa nekkit gàmmu mooy nekk mbiram asas la tàmbali gàmmu 1301 1301 di 1883 la sëñ Tuubaa jëkk a tàmbali gàmmu ahyaytu mawlidin nabi min asasin wan qaadali fawqal muna fii talsas talsas googu fi ne ci la woote màggal gi mooy 1921 boo gisee fi ne màggal ak gàmmu doon lu yéeme wan xaadali fawqal muna fii talsasin nga xam ne ci talsas di 1321 1921 euh, wala doon 1330 39 ci la waxee ne mboolee lu ma doon sàkku ci gàmmu am naa lu ko kawe ci tëlsës moo tax màggal gi ñëw mu woote ko cant fu mu mës a nekkit day gàmmu wajatu wa ci li man takrimuhu baana fi fii chahri di man fii bahri rabbaana ba muy nekk ca géej géej am na gàmm gu ko fekk gabon goo xam ne euh, jëmmi sëriñ bi yor na ganaar di wër gisul ku ko rayal gisul ko jox am na gàmm ko fekk soo xam ne senn saatu képp la sëñ bi yor sëñ bee demal boppam ba ca jaba mu wecc ko ko jaay saatu si jënde ko koy këyit ñëw di tag rasulullaay keroog nee na muqaddamatul am dax la doon bind waaye bu ne wasixtu bi rabbil arsi sil juudi wala afi maxal Moustapha wallahu li maxuli ni safi nee na rasulullaay daa wàcc mbar tiim ma ànd ak jibrilu lu ma bind yonent bi jox jibrilu jibrilu jox suñu borom ba ma agsi ci ku uusu ko tasqini bi haada bu shoratin yonent bi ne ma am naa boo xam ne yàlla ma ko sédd kenn mosu si naan ku dul man kaa ñu dem ma yóbbu la ci sëñ bi ne ba ma sukkee daa mel ni déggum noor ba ma siggee mu mel ni bab cooroor keroog jalaal jeeg jamaal ji dar na ma ba ku ma waxut ki ma doon xamoo ko loolu moo andi wali xaada an wali xaada siran xaaba an xayrihil muhyi kon moom jëkkalantewut ak kenn ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet ndax du du du moom moo ci jiitu ñëpp ci sallallahu alayhi wa sallam foofu ci gabon it egg na ci ba mbind mu woor laa ca muy sayidina maqdumana muhammad wa alihi wa sahbi bi ko sëñ bi tekkil Serigne Sylla ca Tureen du la dana ko maqdumuna laa leen bëgg a tekkil na sayidina muhammad wa ali rijaalu samadi ne mooy ahlu badrin daana baamtu leen ko daa ibaadu samadi mooy malayka teewoon badar na maqdumuna mii nag laa leen bëgg a wax bi ma eggee ci nekkee ci géej gi egg naa ci bëgg rasulullahi ba bu ma ne domm kaasu kafe du saf bu dee suukar du saf waaye wa jaani bi kalimatin qad istaghragat ma zahiran wa batina nee na keroog la ma yonente bi feeñu wax ma wax joj man suuxal na liggéey bi dana ma maa ataytuka haadihi l marra kon yonente bi ñëw na ci moom ay yooni yoon ah defe naa ñii gàtt xam-xam ñooy wax gis yonent bi nangam ak nangam yonent bi kay bu fekkee mënee koo gis kon moom du ci ki ko ñàkk a gis de ci yonent bi la moom parce que moom war na capacité bu toll ni fu ruuxu jullit di nekk di tanalute bu sellee ngay gis ta te lay dara du ko téye leer la léppam leer la amul amul amul luy téye yonent bi sallallahu alayhi wa kon maa ataytuka hadihi al marra illaa lu ushrika yaa mii bi annaka ahabbu min saati nafsi jërëjëf nee na lii la ma yonente bi wax tey jii li ma tax a ñëw mooy di la seereel ne sa jëmm jooju laa gën a bëgg sama jëmm man rasulullahi jërëjëf yow Ahmadou Bam kon loolu wonee na taxawaay bu mu taxaw moom seriñ bi di gàmmoo di wéet du gis ko wéttali ñibbi si dem ci yéen fa juróomi at gànnaar ñeenti ati gànnaar juróomi ati ba ñëw njaareem njaareem gi egg na ci am na gàmm goo xam ne soxna góornóor bi daa réer ndax mbooloo mu bari nga xam ne boobu Cheikh Issa Dieng dañ man duñu am ay dab sax yu ñuy yàq dañuy def lu mel ni ay perong rek taras dara ñu yàq ci xéewal yi jolli sëñ bee génn di dënale di séddale guddi gi day baagante nga gis ko muy dindi kaalaam gi ta moo ñoom moo ñaayu sëñ Tuubaa dara melul na wax dax koo yëg du zalaam sëñ Moussa Ka nee na lu mu lëndëm lëndëm bu nee kàng muuñ day mel ni fu ñu taal lampi passeport boo tuddee rasulaay bu doon dox danaan tekk taxaw duutu yëngu ndax bëgg alayhi salaatu wasalaam boo ko tuddee mu daal di ree giñ naa ne daawunu soree la sëñ Moussa Ka wax boo ko tuddee bu doon dox boo ne Muhammadu rasulaay mu ne tekk daal di muuñ ba nga gis bañam te bëñam yombuloon a gis moom Cheikhul Khadim léppam mu jeexal ko ci yonente bi alayhi salatu salaam léppam di alayhi salatu salaam ba ba egg ci ne juttulahul yawma bi ruux yi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam jox naa ko sama bopp sama ruu sama jëmm samay wayjur sama lépp jox naa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jumlatu maali wal midaad wal xalam hadiyatun lil mustafa babi niham léegi amatuma dara sama xarima samay daa sama jëmm lépp jox naa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xulóori ramsi nga xam ne amatul benn lu muy téye ci boppam wala dara lu koy dese léppam da ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon sëñ Touba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mësi suta dégg ku mel ni moom ci alayhi salatu salaam waaw mës sa am ci àdduna loolu dafa mat a lekk lu xam lu nit koo xam ne da koy bàyyi xel xam ne sëñ Touba amul jotu concurrence amul jotu amul jotu nekk fii di xëccoo amul jot di werante amul jot di wërante wutante daraja sëñ Tuubaa darajaam jëpp ak mbiram mépp mooy xettali jaam ñi ak dimbale leen ak muccel leen ba noppi engagé coono yëpp bàyyee leen noflaay bi buñ ko fayewut lu mooy nag di ko def moroom ak di yëkkati lu neex di tekki ci jëmmam dara du ca ngor dara du ca jom ndax sëñ bi bàyyi ne këram xusuur yi xallat wal ahlu an yi tafaaraxat li maddi xillati anhul madi yu xasiiru kenn mosu koo wax bàyyi sama kër yow it njabootam tàggoo ki doomam ñu toll ci juróom-ñaari at ñeenti at bàyyi dëkkam te li ma ko yóbbee li mataxi lati anhul madi yo tagg rasulullaay képp tax mu tàbbi ci mbéex mi di jaamu ji ko jàppe xar baax baa nga jàppe ko lu ñuy ménémise xamoo Sëñ Tuuba rasulullaay ko jaral lu toll noonu nañ xam dimension bi mu am ci yàlla ak kim doon Sëñ Tuuba du moroom du ku ñuy kale du ku ñuy foyee bu doon ku ñuy kale maam yi ñii téeméeri rakka la nafile maam Mor Jaara borom saar Sëñ Tuuba ko wax ci njaareem na ko rasulullaay turandoom yëpp yaa ko ci gënal muy borom saam téeméeri rakka la ameelut yàlla ak ameelut am jaam ak te teewul daa jox boppam Cheikhul Khadim sëñ Modou Dem daana wax ne sëñ Touba la kenn xamul lu mu doon waaye borom saam mat na borom jamono kon boo doon atte ci loolu doy na kenn amul mag ju toll ni sëñ Ahmadou Diarra rasulullahi ñëwal boppam njëriñ ngir bëgg a borom saam ne sëñ Touba sa mag gi laa bëgg a gis sëñ Touba ne ko rasulullahi fi ñëw di la gis mu ne ko loolu la sant yàlla la mu ne ko da ngaa xamul sa bopp le waaye kuy naafila téeméeri rakk di woor bëccëg yabiitu yusalli suma yusbihu saa'ima wa ma illa ila kamtaari waabilin hmm? kon sëriñ bi ci boppam dafa am moom waa réew mii fu ñu bëgg a jàpp sëñ bi ak di fa xool sëñ bi sëñ bi nekkul foofa sëñ bi moroo mëntewul te ñàkk ñàkk kersa ak teggin weesuwul di di di di tuddu sëñ bi di tudd leneen loo xam ne du noonu sëñ Tuubaa Rasulullah yi ko taxoon a ñàkk kër taxoon ko ñàkk tali bi maa ngi la koy wax léegi Cheikh Abou Mouhamad al Kunti Abou Mouhamad al Kunti al Jasani lu mu inna allaha taala kachafa lil awliyai an maqaamin azizin indahu wala yunaalu illa bi balayin min azami l balwa falam yataracha ila si ahmad bamba xaadimu rasul si abou mahamad nee na bi yàlla jox suñ Tuubaa daraja ji wàllu yëpp la dajale ne leen maqaamu mu réy ngi nii ku ci bëgg a jot nag natt boo séntu ba yëg ne metti na bu ko raw laa lay teg waaye ku ko réussir ma jox la li ma yor nee na keroog kenn poussé wul candidat ku du Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Abou Mahamad nee na fa la ma fekk keroog te mbind maa ngi noonu na wàtt leer nañ hmm? kon sëñ bi euh, noo ngi leen di sant bu baax Mbakke réew mi nag réew mu naqaree mm, damay wax ne euh, nanguwun ku jiitu nanguwun ku raw nanguwun ku gën waaye defe naa makka boo fa demoon ca biir makka ak madina ñeme woo faa jël kenn di ko concurrencer ak sëñ Tuubaa ci bu doon tagg ko xasaana ko gënoon a jege ibnu saabit wala ku ne Kaab ibnu Zuhayr Muhammadul Busayri mii ni jàng Burdam 1211 la gën a jamono gàddaay gi am na junni at ak ñaar téeméer fukk ak benn mu door a judd ah. te mboolem ku doon tagg rasulullah sallallahu jiitu na la bu dee boo demee ca anas dana raw naa anas ibnul malik xaadim la woon te ibnu shihab nee na fukki at la am ñëw ci rasulullahi sëñ Tuubaa moo waxal boobu li xuttama zaxzax an nii danas surtout qadimal Mustafa mislu anas mel naa ni moom bu ni meloon doy waaye da ko jéggi waat ne barra anil xudus min kulli danas wa inda xayril xalq jaawastu anas jéggi naa anas raditu an il baaqi wa an xayri xalqihi wa fi matahi jaawastu kaxban wa hazana maa raw kaxab ibnu zohir maa raw xasan ibnu sabit daa doo wax ne ne qaddamanillah alal quddaami bil muntaqal musabitil aqdaami mbooleem ku jóg di liggéey rasulaay maa ci ne ca kanam maay pee moo tax toog na fi njéeréem mag ñi waxtaan na ba yowmal xiyaamee muhammadul busayri mooy yor drapeau bi tàgg rasulaay sëñ Tuubaa na xaw ma kuy muhammadul busayri waaye bu ñu yëkkatee wenn bay ci mu xaddamaat mu bàyyi drapeau ba na pëccët te ëllëg la ñuy xam kan mooy cheikhul xadim ci woowu melokaan kon Euh, sant nañ yàlla ci jataay bi bu baax bég nañ ci sëñ Bachirou noo ngi leen di sant bu baax ndax ñi fi daje doy nañ rek wax naa ko léegi ñuy njabootu borom saam doon ñu baax doon ñoo xam ne man maa ngi ñoom a dëkk ndax saamu siblatif laa dëkk sëñ Maam Moor doonoon kilifa gu baax bu seen way jur gu amuk taalibe gu fees dell ci baatin nëbbu léppam ngir ak taalibeem ma sa wone dara lu mooy boo ko gisee mu toog ca buntam boobee la ngay jàpp ne amul jenn yitte ci dara lu mooy doxuk mbokk ak dundal ko ak lislaam man du ci lu mën a doon te lu ne mënoon a daje ci moom woon gépp nga xam ne yesodu an duniyaa wa tiibi xaruuriha woon ginnaaw adduna ak bànneexi yi ak léppi adduna yi ba dëkkaale ji ak boromam kon njabootam gii bu nu ñëwee fii tey fekk si jataay bii ngeen jël bis bi dara jaale ko sëriñ bi tuddee ko ko alhamdulilah loolu noonu sant nañ ci yàlla fekk bi sëñ Bachirou nga xam ne baayam moo tax ñu may wax gàdda maxtaar sëñ Mahamadul Maxtaar mi mi way juróom muy sama wasila di sama goro jël doomam jox ma ma yor moom mi magam sama la maam jaara loolu it moom mi di sama sëriñ ndax li may gars yi wax moom laay contre toujours sa bàyyi laa yaakaar duy wax ginnaaw da ngaa war a toppee fexeel mu rafet te Cheikh Ibrahima Fall moo ne woon kër sëñ ma ñaari cër fi am cërub sang ak cërub ngàllo fi ne boo nungoo dib jaam rek dib sang boo nungoo di jaam rek dib sang waaye boo bëggee opposé rang gi bëgg koo daggit kenn du la rang te lay jur coono rek ah, waaye man bu ma génnee fii mbooloo topp ma mbooloo di ma siyaare mbooloo di ma ñaanal ma demee sama kër damay tëju ñi ma wër ma bëgg gis waaye loolu jotantiwut ak dara démb dama lem daarul maxti di génn am ñu ma topp naan maa ngi lay ñoo ngi lay soog waaye nun de dañoo am personnalité am diiñ diiñ ma ne leen kaay yaar yooyu ngeen wax amul njariñ gis ngeen yéen ngeen di tekkee diiñ ak personnalité mooy iñaan ak ñàkkuk taalibe xam nga ab lu muy wax mooy man damaa amuk taalibe am loolu ngay wax waaw ndax taali bi moom bu xasee ñëw ci yow rek yëpp daje na doo def loo warta def doo wax loo warta wax doo dugg foo warta dugg doo dem fu la lay doo fekk ku doonul sa morom it koy def morom ma ne ko ndax fii ma dugg nii léegi ki fi nekk Mbàkke la sant waaye bu doon natt ci sayir lu ma ëppalee ci adduna lu mu sant Mbàkke ma sant mesere amul waaye bu ma soloon sama mbaxano mu ci wetam baa ma toogandoo moom baa ma woon ko leneen bu booba doo leen ma topp doo leen nuyu kon kon diiñ amul njëriñ li am solo mooy ak taalibe yéen ni koy tekkee du noonu te waa kër Sëñ Tuubaa kenn du tuuti te nit ñi nañuy xool dégg naa barki dem ko def ab vidéo di wax na sëñ Tuubaa baax na waaye mën naa am njaboot gis nga sëñ Tuubaa mbooleem lu mu bëggoon ci njabootam la ko jumaay Tuubaa ji noppiwul jamonoy sëñ Tuubaa màggal gi fi mu egg sëñ bi màggal gi mu njëkk a màggal cent mille junne juróom-ñetti téeméer la ci defoon màggal ga ci topp benn gàtt la ñaata millions yi millions yi nag la ñuy def kon li mu bëgg ci ginnaaw njabootam la ko amee jumaa ji sotti Masaalikul Jinaan barki dem fu mu ko amee bi mu fiy nekk ci ginnaawu njabootam la amee dañ na ko bi da koo ñaan zurriyatan tayyibatan tu jaddidu na jël abiyil Mustafa taj dayilu Touba téeméeri juma ak ñaar fukk am na fa yuy julli ajjuma ma jàkka yi junni daara ak nangam am na fa loolu ci jamono yi Sëñ Touba la am wala ginnaaw jamono yi Sëñ kon njabootu Sëñ gi Sëñ Touba leen tànn bam neex leen mu dëkkoo leen gis nga boo xasee ab sàmm ak juróom xasoo sàmm xasoo jur gi sàmm bi nga xas boo ne daa yooy da nga naan sàmm bi mënta sàmm boo ne daa ruur da nga naan sàmm bi daa sàggan kon njabootu sëñ Tuubaa saa yoo ci tegee baaraam rek yëgal ni sëñ Tuubaa nga ko teg kon maa ngi leen di balu àq sëñ Demba noo ngi sant bu baax na ngeen nu baal àq ci jataay bi sëñ Joxaane sëñ Mohamed na ngeen nu jéggal sëñ bi danoo nekk ci ay yitte yu xat bakki balla waaye moo tax waaye kon nu gën a yaatal jotaay waaye bég nañ lool balay sa buri noo ngi leen di gën a jàpp tey feddali collègue Mbacke sant nañ ci baax Mbacke ngeen di abonné fii mën a jot mboolem boo xam ne dugal nañ ko ngir mën xam li nga xam ne mooy